Président, Monsieur le ministre, Madame, Monsieur le collaborateur des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, sama me harit sànq bi muy wax xol bu rafet rek motax muy wax waye dafa am ño xamné li mais je voudrais juste euh, rappeler que nous nous mom su nango tay rek ay pexem moo jubul beneen bi mooy xam nga xeexu groupe moom li xale yi di wax dafa am ñuy dóor am ñuy song am ñuy daaneel am ñoo xam ne nag bu ñu daaneelee ba pare ñooy donc cette affaire là il faut que les gens se rappellent que je suis porte-parole adjoint d'un parti li may wax waxaluma ko sama bopp dañ maa yónni te su koy wax je le dis pour toute la coalition il faut que les gens sachent raison garder ay le gambarisme là c'est pas fii lañ koy parce qu'on sait qui est qui et qui a fait quoi c'est pas la peine de venir ici woy Abdou Mbow nangam nangam pour bëgg jaxase ak nit ñi mënul et ça ne passera pas donc je voudrais vraiment rassurer les gens pour nous ramener, nous ñun li on l'a fait de manière organisée mais la présidente ici Adji Mergan, c'est elle qu'on devrait féliciter parce que ku un ci plateau et tout ce qui s'en est suivi mais fii nous na ñoo Nous ne mënuñoo wax waaye mën nañoo mobiliser mon nous def lenen, mën nañoo def lenen, fi ku ci ne ak la nga tax a ak la nga wara def donc arrêtons ce satanisme là si je peux m'exprimer ainsi bi monsieur le ministre pour revenir au sujet je voterai ce projet de loi parce que nit ñi dañuy fàtte ne l'a même pas dit mais en décembre ci a voté le budget Sénégal bi ñuy est-ce que dinañ fi nekk di campagne électorale ak di dem élection su boobaa état bi lu muy sénégalais il faut arrêter waay beneen bi on a demandé l'évaluation l'audit du fichier mais les ñu ne nañu escamoter évaluation bi xam nga loolu lan lay indi monsieur le ministre de l'intérieur demain probable contestation des résultats élections alors que loolu duñ leen ko mayet dañ leen di dóor bëccëg wàññi bëccëg nit ñi xam ne dóor nañ leen bëccëg ñu installer conseil yu bees yi non personne ne vous donnera l'occasion de contester élection. élections du fi donc je pense que moi je voterai ce projet de loi parce que c'est venu à son heure et je pense que aussi si on est de bonne foi, nous sommes en février, ñaari président de la République nekk am mat gu toll man je vais aller vers le mois de janvier. mais je pense que nak quand même bu féké ni ñoom bëgg nañoo élection parce que aussi bëgg bëre bañ bëre ñi ngi nekk en avance fo ngeen bëre ku lekk avance jàmbur mom di nga bëre mais lekk avance jàmbur ba paré ne du ma bëre corona bi dindi nañ le mesure barrière yi. donc bëre rek moo fi parce que arène nationale tijji na nit ñaa ngi fay dellu donc il faut ngeen nangu bëre su fekkee ne nag bugg leen ngeen boycotté su boobaa ñu xam ne yéen comme amu leen ay matukaay pour dem ci làmb ja ñu xam ne wax dëgg yàlla ragal ngeen rek mais je pense que nous on votera ce projet de loi parce que c'est venu à son heure wax dëgg yàlla saaga yàkkamtee xeex la comme mbir yi dina ñëw li waa ji naan laisse mouton pisser tabaski viendra je remercie